yéen a ngi déglu VA FM rajo bu jiitu ci digital fii ci Tëngéej li si yéenekaay ak Mbaye Dione dal leen ak jàmm defaraat leen toogaay yi ginnaaw ay nag jàmm Macky Sall ak Mimi Touré de ñoom mujje nañu juboo ubbil yéenekaay bii di Le Quotidien moom nag mu nga ñuy xamal ne Macky Sall ak Mimi Touré ñoom gisante nañ ca kër Macky Sall ga nekk foofee ca Mermoz joxante nañu loxo saafonte nañu toog nañu fa lu toll ci diirum ñaari waxtu waxtaan fa daal ba seen diggante mu jaardi taax seen gisante boobee nag seen i jegeñaale ñoo ko sàkku ba mu mujjee antu la a tëgg élection locale yi ñu dëgmal ne benn liste rek lay joxe du am beneen liste parallèle te di xam ne itam ne moom mooy tànn candidat ya muy samp ñu bëri nag ci parti boobu ñoom lànk nañu ba tëdd ca ñag ba ndax ñu bëri ci ñoom dañoo bëgg a nekk ay candidat ci élection locale yi ñu dëgmal kii di Serigne nag nekk ko professeur ci université Cheikh Anta Diop bu Dakar moom mu ngi xam le ne nag président Macky Sall xam na ne listam boobu ñépp mën a ñoo ànd rek tënku na naññ ne liste bu bokkul ak listam boobu bokk mu amaat ci xam ne ne kii di Dieynaba ba fekk ñaari vigile foofee ca Mariste ñoom vigile yooye nag yoon teg na leen loxo ngir amal ab enquête ci ñoom keneen kanu teg loxo nag mooy chinois bi di lin xewee ubbil yéenekaay bi di libération mu nga ñuy xamal ne lin xewee ab chinois la rek bu ubbi woon ay salle de jeu ci dëkk yu bëri fii ci diwaanu Sénégal teg fa nag ay machines yoo xamante ni dara légalu ci moom chinois boobee installé woon na saalam ya fu ci mel ni Tiwaawoon pël Thiès Saly Toubab jàllaw ak foofee ca Kaolack moom leen xewe nag semaine bu nekk daana ci am lu toll ci fukki million ak juróom moom nag yoon teg na ko loxo démb foofee ca ngapparu ba tey journal bi di libération di wax ci mbirum boo jinne ma rëccoon foofee ca kambinaal mu ngi xam ne ne boo jinne ak xaritam yooyu ñu ko jàppandoo leen foofee ca misira ñoom nag démb jàkkaarloo nañu ak procureur ba ñii di enquêteurs yi nag ñoom ñu ngi njort bu baax a baax ne boo jinne am na ñu ko jàppale ci biir kaso gi ñu ngi sàkku itam ki nga xam ne moom la bokkaloon ab néeg di Demba Sow ngir woo ko ci kanamu procureur ñu dem ci wàllu tàggat yaram ubbil bi stade mu ngi ñuy xamal ne sunu gaynde football yi nag war nañoo jàkkaarloo tey ci 19 heures ak équipe bu foofee ci stade Lat Dior bu Thiès kii di Kalidou Koulibaly nag di capitaine des Lions mu ngi xam ne ne dinañ defati rek lépp lu ñu mën a def ngir bégal askanu Sénégal ubbil yéenekaay bi di sunu lamb mu nga xëy di wax ci combat Balla Gaye ak Bombardier bi war am 31 bi ñu dëgmal ci face à gi ñu amaloon ci dimanche ji foofee ca Bombardier nekk ci plateau sama digënté ak yow lépp rek ci gàllaaj nga ko teg ki di bombardier nak diko xamal ni da ngay nax sa bop te fama la jaaralé won rek fa laa lay jaaralé wat na la rek nuko raw sax la lay defaat face à face bi warona dox ci digënté tafatin ak boy ñaan ak ci dimanche ji ñu weesu fofé ci ciosan mom nak dafa mujjé sax yaqku ndax ay bandi ño feesoon delu ci buntu ciosan kii di tafatin sax mom mujjul ñew ki di boy ñaan ma jottuna a fofé ci ciosan nak mom mu ngi xam li ne ci sangante xeer ba amon fofé toj nañ ci seen ñetti oto ci nak di agresser nit rombu li nak CNG war na ci wax wala face à face bu moytul am sécurité nag war nañ koo bàyyi jërë ngeen jëf. yéen a ngi déglu VA FM rajo bu jiitu si digital fii ci Tëngéej.